bu ma la génnee te bu ma fàttee nuyu du samay kàddu kàddu yi am solo moom mel nag moo ko génne dafa mel ni lu ci xaw ak Villarreal jëm ci huitième de finale Coupe du Roi boobu nag Real Madrid wane ca kàkkaram ndax 2 bi à la ko lile di Villarreal ba ñuy waaye ba ñu ca Villarreal daal Real Madrid ñëw rawatina ci apport bi xam ne changement yi la nañ ko ci terrain bi Real Madrid daal di remonter adversaire am di jour bi ba qualifié ci quart de finale ya danañ ci ñëwaat ak tirage au sort waaye seen bi doomu France bi di Aurélien Tchouameni mu ngay jégalu bu baax clubam bi ndax nee lam def sax jàpp ne du gën te ngi rëcc muy jamono diggante moom mu blessé tax bokk ci ñëw football mu dem Paris di fa teewe ab match NBA loole nag mujj na ka jéggalu mbokk yi jàppale nag Atlanta moom wax na ci la di ak bépp club anglais bi nga xamante ni yaa ngi doon dox ci lu jëm ci ñu prêté la ki la di Duvan Zapata nañ nag Duvan Zapata nekkut joueur bu ñuy able na leer nañ ci ñëpp ki di Gasperi nag moom nee na rafetlu yoon kàddu yi nga xam ne ñu ngi ko yëgati histoire yooyu yëpp jëm ci Zapata nee dafa blessé te joueur bu important la pour ñoom. te duñ ci nangu benn able Benfica nag amul benn option d'achat ci doomu Portugal bi di Gonçalo Guedes ñi nga xam ne traité nañ ko ko naka traité boobu kan moo ko def lu kenn kurut Wolverhampton donc Wolverhampton googee sax dinañu jëlaat seen joueur bile bu ñu yeggee ci mois de juin bu saison bi jeexee mu di Gonçalo Guedes nga xam ne jamono ji nag ñu ngi ko abal kële di Benfica mbokk na jàpp ne mouvement mu ngay am ci diggante Chelsea ak Tottenham ci lu jëm ci doomu Algérie bi de di Hakim Ziyech noonu nag la ko journal bi de wala doomu Maroc bi di Hakim Ziyech nag nekk fële sa Chelsea jàppale nag c'est maintenant officiel Alex Baena renouvelé na contrat am digganteem ak Villarreal moo la dem fii ba deux mille vingt huit manque yi noonu nag le crédit Memphis Depay jógee fële ca Barcelone jaay ga toll. ñu doon wala trois diggante boobee nag kii di Marc Memphis Depay doomu pays de Bas bi la doomu Hollande bi daal dinay signé contrat fii de ba juin 2025 ci digganteem ak ki nga xamante ni moo di Atlético de Madrid ay kàddu nag la yëkkati yu nit ñi xaarul woon sax amaana moom Jez Lingard bi la yëkkati ko ci këlëbam bale wala ko ancien këlëbam nee na amuloon benn contrôle benn structure ñu kenn si nekk daf doon def lala neex rek comme lu nekkoon ci ab foire générale noonu kàddu yooyu nag ki di Jez moo ko yëkkati daal di ko teg ci kaw club bii di Manchester United désormais nag c'est officiel West Ham daal di signé complètement ki nga xam ne moo di Danny Higgins nga xam ne accord permanent la sax ñu jëndee ko fa fële ca Aston Villa mbokk yi jàppale ne nag kile di Cristiano Ronaldo ak Lionel Messi ñoom ni ki démb xam ngeen match bi doon dox match amicale diggante Paris Saint-Germain ak ab combinaison ci diggante joueur Al Nassr ak Al Hilal noonu nag ci la kile di Cristiano Ronaldo ak Messi daje woon fële ak yeneen i joueur Cristiano Ronaldo nag moom moo def ci Instagramam daal a foto bu nga xam ne moo ko Lionel Messi ñoo ci tegante loxo di waxtaan mu ne tellement heureux d'être de retour sur le terrain et sur la feuille de match et ça fait plaisir de voir le ami mu nekk une déclaration dem ci bu nga xamante ni ñu bëri ñu ngi koy rafetlu ci toile bi kii di Cristiano Ronaldo. amal ko ak photon boobee nga xam ne mu mis ñu si nekk nit ñeen ko doon waxee quart de finale yaa ngoo ko diggante Real Madrid lay doon Atlético Madrid Osasuna ak Séville Valence mooy laale ak Athletic Bilbao kii di muy quart de finale at bi si Coupe d'Espagne muy Coupe du Roi noonu nag lañu ko xamee ni tey gannaaw tirage au sort ba génn donc équipe yooyu ñoo des ci jongante yu ñu mel ngir lu jëm ci Coupe du Roi ni ki démb ci la kii Real Madrid wonaat remonté adversaire am bi leen nekkoon Villarreal ca jamono jooju nag kii di tamit dóor 4 bi à zéro adversaire am bi mu am moom tamit qualifié kii di Robert Lewandowski wane waat fu boppam ak double bu nga xamante ni am na ko kii si ak Ansu Fati ñoo dugal yeneen bi Barcelone yi man ngeen baal ma Ferran ak Ansu Fati ñoo dugal yeneen bi yu Barcelone ba tax moom mi ne tamit mu qualifié